tàggu ma rek lay bloqué ba keroog may pare su ma paree que dama ko wax ba sonn léegi nag dootuma ci waxante wax ju bari nii rek bloqué plus mu dem jëttu mu dem ca faagale ca faaga lay dugal ba keroog may pare mën naa commencé waat amul problème damay commencé waat bu ngeen ma dimbaliwul li lay war a suul yi bàyyi ma may def li may def ba pare comme léegi tëj téléphone beeg yooyu yëpp mënu ci dara damay bloqué rek ba keroog may pare. ça va on a la campagne euh, région de Dakar l'Union résultat on est également Gumsabop est la troisième force politique au niveau de la région de Dakar devant un parti qui a ans il est une réalité wër di wax naan day pour train de et cetera et mais sénégalais yi motax tax résultat yi gëm sa bop am à Dakar ñu am ko et effectivement li jëm également ci biir réew c'est des résultats satisfaisants ñiy wër di véhiculer message yooyu du ñenn lu mooy les jeunes de PASTEF ce sont ces jeunes qui aujourd'hui véhiculent ce message là parce que jàpp nañu ne Bougane noonu Ousmane Sonko la c'est une aberration et c'est dommage que réew mi nit ñi mun a nekk ci affaire fen affaire manipulation affaire yàq der affaire wax yoo xam ne kenn xamul fan lay jóge man Macky Sall damaa gën a liggéey ndey ba may liggéey di ko jox ci suuf au nom de quoi man Bougane ku ma xam ci réew mi xam ma ngir fit xam ma ngir dëggu xam ma ngir liggéey. li ma ci réew mi def ci amul benn ne fa interdit donc gisuma luy tax may underground wala quelque chose comme ça ñoom ñi nekk ci loolu ak di wax ci réseaux sociaux yi rek wax mais li wóor mooy yow xam nga ma ku ci man wax ma ma doxaan sa ndey yow xam nga loolu. <laughs> <laughs> yow ba pare taxaw di saaga réew ma yow joxaguñ la réew nga taxaw di saaga waa réew ma ñun ngay doxal suñu ndey <laughs> waa gëm sa bopp xam nga gëm sa bopp xam nga du dakaa gëm sa bopp ñun c'est dommage que suñu ndey ki leen di doxal du doon deux puces waaye ñun fay bi man jëndal naa la kado Bougane jëndal naa la kado tey dinaa la jox kado ba wis la lii maa la ko jëndal dani maa la jëndal yii dani musmi mi maa koy posté léegi courrier recommandé li maa la ko jëndal ba buuñaa la bu awage bi Di kado awage la bi nak maa la ko joxaale boo roofee carotte sey tun parce que ñun ay deux puces mënu doxal suñu ndey ñun suñu ndey yalla dafa def suñu bayyi ay goor lañ suñu bayyi ñun ay goor lañ motax ñu am fi toplet leen nak jëndal li li bëggaat maa la koy yónnee boo roofee ba sa tuun ngi yolom nga jël bii gis nga batañ seng ngi nii gor a ngi nii de bëggaat maa la jox yi ngay dani danga doon laajam réew yow jotagoo am réew ci teg dil nga ne jamono jii nag opposition bi moo féroce mooy réseaux sociaux mooy opposition féroce yonante bu bees du fi am protocole du fi am tëgg wëndeelu du fi am yor télé yaakaar na yañu ëpp làmmiñ du fi am da nga daan toog sa télé di wax tey am nañu télé doon nañu ay directeur ñun ñëpp lu ngeen wàqe ñu suul may naa la bii mbuusa ngi nii mbuusu karot laa la yónni mayale la bii kado bu yi yolomee rek bii bopp ba départ ba dijj wàcc jëm ci suuf li tax taamuwu leen ko nag moo ma jaaxal mais na nga commencé test bi nañ ko commencé si yow test bi commencé ko yow léegi nag réew mi lay waxal opération boy, yéen lay waxal gettu bey gettu bey dañu wara dundu dund de gis nga Europe gi ñu bari ñu ngi film Europe di leen yëngal Europe dara amu fi daw ba de tol ye fi ne ay toli sangara juromi at dak ko juromi at bo wutul refusé papier refusé wala nga dem wuti ji kayitu gor jigen mu nakari sa xol lol mais mënoo ci dara do mën jall yu rafet yi biling biling yi Do ay dem ko tabax du ay jinne du ay rëbo ay nit ko tabax ta ay nit lañ denk suñu alal mais ay domaram li len téré def suñu bëgg-bëgg bañu mëna mën suñu réew tok ci réew mi di filmé di won dëkk yépp lenn dong la moy carotte gi carotte gi mo len andil li légui nak ñu ngi jubali législatif législatif wax ji wax ji wax ji wax ji législatif la luñ len def fi rek luñ fi nek di jema xëccio fichier bi rek génn ci mbedd mi rek lap waa Pikine moom ñu nga topp Ablaye Timbo may ñu ko dara Timbo may ñu ko dara waa Pikine dañuy xëccoo yow nag suñu doomaraam ji nekk Saint-Louis pareeguñ ci yow nag Aba Aba yow ñu ngi lay wër da ngay rof carotte wala rofo carotte ñu ngi koy lijeenti Aba sa gel yëpp ñu ngi commencé piste benn par benn dinañ wulli say xuur xool lu ci ne li tax nga teg ñu dil ñu naan la génneel nga jubilé génnoo jubilé nga toog ba dénkaane suñu victoire wëlbate ko wat nak nan ñu ay da ngay jubilé pour ndokkel wa ndar mënoo won jubilé pour bañ xex casse victoire mais mën nga jubilé pour ndokkel wa ndar ndax ay millions yi ñu la jox danañ tay sa gat ba nga en arrière yow aba duñ la may dara nak législative yi ni ñew nak yewi askan yi yan lay waxal jël leen sen Cheikh Bamba Dièye am borom fit la Cheikh Bamba Dièye man mom la yag wax ñu may tong tongé ci suuf jël leen Cheikh Bamba Dièye borom fit la du reculer day xex aba ah teggil malen ko ngeen tek fu teg ko fele fi xexu Pastef projet bi ak xexu yewi askan wi askan wu yewé ko manan naan Pastef sax koku nañ ci génnee Pastef man duma wax seeni wax xexu yewi askan wi xexu mom sa bop la mom sa bop nak mom da ngay am fit yewé ko naw bëggaan nee na dafa mom bopam de day dul ay dil lay tek karota ko moom bëggaan moomul boppam de bëggaan sa parti bi dañ ko changer def ko karot jëlal leen ma sé Bamba jey askan wu ko ay borom fit la laaj soxlawul ay doomaraame ay abaak yu kenn xamul na leer voilà ñu ngi ñëw nag législative bi duñ ci xëpp suñu xaalis def fi ay ket def fi lu ne ngeen ñuy jëlal ay yambar yu mel ne ay abaa di ñu ko fa tegal na teggee ko teg ko nële dina doon jeune jeune jeune retraité juddu tey bejjaaw tey màgget tey dootuñu la tegate ci kanam fu ñu la tegate ci kanam man dinaa la togot togote abaa yow yow leer laa la wax li nga ma def nii duma la ko baal ilaa yow mi diini suñu victoire bi nga jaay duñ ko baal léegi nag maire yéen laay waxal da ngeen ñu yërëm nag maire yéen laay waxal nañ déglu fii. wàcc suñuy fàllu mbàkke wóor na xaadim rasul wóor na yàlla ak yonante bi ak maa naqar ak maa metti dafa metti wala maa ami mbàkke lim def ci Touba xoolal rek bala ay lim def ci Touba xoolal day sadi jee bi mu joxe nit ñi ay warkat lañ barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke ay warkat lañ doomu aadama yi ay warkat lañ ay warkat biir ñoo ne ci Sénégal ay warkat lañ président Macky Sall ni mu ci Touba ak jaam yàlla ni mu leen jàppale ku nekk war sa kaat kaat ku nekk war sa caabi tey ñu war ko waaye day salijee Amin Mbacke Matal Diop yàlla na leen yàlla jàppale Serigne Touba Mbacke ñett fan a ngi fi ma nekk gaar Dakar. jërëjëf doomu naan. mère naanal vinaigre naanal vinaigre mère joxal ma Jangan vinaigre mu naan joxal leen ma ko vinaigre mu naan. aywa naa leen ma ko vinaigre waaye mu naan. sama yaay leen dara Touba laa ilaha illa la kenn dootu leen nax ma ne la ma leen waxoon ñii dafa mel dañ dégg sama wax ji sax sëriñ si lu leen makki indi lekk leen bu woote ba jotee ba leen taalibe ku leen neex ñu wotal très bien gisagu leen dara sax yaay njëkk war kat yow mi yow am yéene di ànd ak Macky Sall pour war askan bi yaa bon yaa yiis yow miy jooy sama audio bi war nañ la ko delloo ku bon nga jigéen ju bon nga yow lekk alalu Macky Sall yow feeñal nga sa bopp Maka sal daf la jox pour nga campagnal ko pour toroxal ko pour dooleel gor jigen ni yow yaay jigen ju bon yaa yiis yow ya bon ya war Touba. wala mère yeen lay waxal de mère bi yeen ako mom li ma len di tegal di yeen ako mom ku fi lek alal rek gis nga. ba affaire Ami Ndiaye mi de yalla budi da am ci ceeb ba dégg naa ngi nangu bi wóor na yalla maa ko dégg dégg naa ñu ne bi koy nungu boye bobu fekke la am ci de mu delo ko. maa la wax loolu dégg naa ñu ngi wër di nangu ceeb bi ceeb ba de moom ko ci amoon am nga soxla xaw ma dégg ngeen boobu xibaaram déedéet waaye ceeb bi de ko ci amoon booy boo takk ko ndànk te delloo ko moom ceeb bi de moom dégg naa ñu ngi koy ñu ngi koy wër di nangu moom. di ngi xool da ngay xool du da ngeen ñeme encaisse rek bàyyiwu leen ceeb romb yéen du ceeb spaghetti lu ñu leen jox rek ngeen jaay seen avenir doom yi. mais seen doom yi tukki di ray seen bop ci àll bi menuisier métallique yi nek ci dëkk bi pour ñu lijeenti seen bop mu metti lool tailleur yi peintre yi ku ne di ray sa bop yeen ngeen lank ñu téye ñu di ray ci mbedd mi xolal gendarme yi xalé yi ba xalé yi sax dañ leen di door ay policiers yi dañu xamni ñi ay ay ay ay xalé lañu man duma ragal duma taw ané la laa tudd yi dañu xamni ñom seen jarbaan seen rakk wax dëgg seen rakk seen jarbaati may tuddu ané tudd